salaamaaleykum amateurs de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii 26 novembre 2024 ci wàllu tàggat yaram troisième deuxième vidéo d'abord képp koo xam ne nii abonné ko sunu chaîne YouTube bu kataay ba seul bouton s'abonner bi ngay like di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox matin midi soir xibaar gi nag dinañ wax ci baax saa gone gam bëgg waaye Erling Haaland dinañ ñëw benn par benn bu leen dara rëcc ci xibaaru tey jii deuxième vidéo mu ngi noonu ne euh, le rêve n'a pas de date d'expiration euh, loolee nag on fait allusion à Vinicius say rêve euh, pour mu jeex amut amut mën nga dem ba sa dernière souffle sa rêve ba na ñëw Vinicius nag photo bi dañ ko doon def daaw ne ah puisque Maurice euh, mën naa ni euh, kii que Maurice def na ko Karim Benzema ba Karim Benzema jëlee taxaw si ginnaawam tàcc ko reetaan Maurice jël ko Karim Benzema def ko Cristiano Ronaldo ak ñoom seen tàcc teg nekk ci ginnaaw Karim Benzema après mu ñëw jël ko Vinicius ñëw dafa def ko ñu ne ah peut-être déwén moo koy jël mais tel n'est pas le cas mën na ko bañ a jël jamono ji mais ëllëg mën na koo jëli ji lu mu yàgg-yàgg lu wërsëg ala kulli xaal fu mu la fekk daf loo fu mu foo mën di nekk mën na la fekk kon fini tiens bon téewal rek peut-être mën naa ñëw waaye même action boobee ah, kooke di euh, Phil Foden moom it daf ko reprendre ba euh, Pedro Rodri di annoncé euh, di ñëw célébrer ah, loolee di trophée boobee nga xam ne mooy ballon d'or trophée individuel bi gis ngeen ko ah, Phil Foden a un objectif loolu c'est clair net la Vinicius def Benzema def ko waaye Modric def ko jot na koo def taxaw ci ginnaaw di ree ngir waajal ëllëg xool ballon d'or boobee que ñu jox ko ko aussi sentiment de l'applaudissement joyeusement les autres jusqu'à ce que votre tour arrive, pouvez être capturé dans une photo. Celle-ci serait sans aucun doute cela. Koke di euh, Phil Foden euh, mbébétam bëtam xelam xolam lépp teg na ko ci ballon d'or bi ñu ngi xaar ba xam la dal Benzema dal Modric mën na ko dal te de waaja dal peut-être mi nga xam ne am na yéene boobee lépp lu ci mën ci am di ngeen ko gis jot ko ci njekk ak teranga Manchester United surveille surveille Théo Hernandez le club donne la priorité euh, à l'arrivée d'Alfonso mais un accord sera difficile à conclure Manchester United mu ngay bàyyi xel Théo Hernandez malgré euh, le club donne priorité l'arrivée de Alphonso Davies mi nekk Bayern Munich Mm, ñu ngi xaar mbir yi la nar a demee ak nan la nekk la en tout cas c'est un joueur bu prometteur en coquet ñu naan ko euh, Hernandez il toujours exceptionnel ci côté euh, gauche bi Manchester City est confiant que Erling Haaland euh, suivra coquet ñu naan ko son coach boobee di Pep Guardiola en signant un nouveau contra avec le club Manchester City nag am na yaakaar que ni coquet di Erling Haaland dana topp coquet di Guardiola ba signé beneen contrat moo coquet di Manchester City ngir mën a woyal foofu foofee bu baax a baax jàppale leen ci seen euh, club boobee di Manchester City ci wàllu bu euh, c' est un moment incroyable kii euh, buukula la buukula mu ngi noonu ne doomu Messi boobee nga xam ne ndeysaan da doon dem football foofe ca dëkk baayam ci club ba nga xam ne forme nañ baayam bañ defal ko sax foto boo xam ne nii moom la ñuy sargalee baayam ca stade boobee doom ja nag war a football ak ancien club formateur u baayam noonee jàkkaarloog ay moroomam ngir mën a jaayante doonoon moment yu historique moment yoo xam ne yu daw yaram la dem bay xool sa baay fa mu nekk noonee ca photo ba di jàmmaarloo ñi nga xam ne bokk nañ ci ñuy former sa baay c'était des choses exceptionnelles et émouvantes c'est un moment incroyable qui beaucoup là beaucoup le Messi joue contre l'académie de Newell's Old Boys à Rosa Rio mu ngi noonu en Argentine on rappelle que Lionel Messi a fait ses débuts dans leurs académies Messi nag fa la tàmbalee wàllu footballam Thiago joue euh, même devant des à son papa à son père quel moment historique dem ba football ci bantul yoo xam ne jàkkaarloog sa bàyyi fa photo bàyyi fa nekk euh, nga ñu war la ne kooku foofee la soqe ko foofu loon ko jàngale football ci ay njëkk mu ngi noon ni la Milan est a à rivaliser avec Newcastle pour le recrutement de euh, Dominique Calvert-Lewin yu marché l'AC Milan nag actuellement euh, pare na pour jàmmaarloo kooki di Newcastle ngir mën a jënd kooki di Calvert-Lewin l'anglais bi nekk foofee ci Everton bu ñoom Idrissa Gana Ngath ñu ngi xaar mbiri na la nar a demee ak na la naka la lépp lu ci mënti ngeen ko jot ci njëkk ak teranga son contrat avec Everton expire cet euh, mën naa ni été 2025 euh, bi mercato bi di ñëw la contrat am di jeex ak Everton xamuñ nag da ko renouveler ou pas bu ko na ko am gratuite ñu ngi xaar mbiri na la demee ak na la naka la lépp lu ci mënti am di ngeen ko jot ci njëkk ak teranga mu ngi noonu ne ngeen euh, xamee ko noonu waaye te gars yi match champion yi war a am tey ji moom lañ leen di indil kookee di gi euh, mën naa ni euh, Étoile Rouge euh, dafa war a jàkkaarloog Stuttgart tey 18h45 Sturm Graz nag war a jàkkaarloog Girona dig nag war a jàkkaarloog kooku di club Bruges mu ngi noonu ne ngeen xamee ko noonu ci match Ligue des champions yi war a am mu ngi noonu waaye yamaatuñu foofu ak Dinamo Zagreb war a jàkkaarloog kooku ñu naan ko Borussia Dortmund Liverpool war a jàkkaarloog Real Madrid waaye Monaco war a jàkkaarloog Benfica PSV Eindhoven war a jàkkaarloog kooku ñu naan daan ko Shakhtar Donetsk mu doon match yoo xam ne ni war na mën a am tey uh, ci Ligue des champions bi mu nar a neex yëngu uh, tegu ci temps mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu waaye surtout match Paris Saint-Germain Bayern Munich aussi uh, match bu nar a neex la yëngu tegu ci temps mu ngi noonu mu doon deux équipes yoo xam ne ni actuellement ni ah ku ne soxlaa na ay victoire ngir mën a woyal bu baax a baax ñëw ci kooke di Thibaut Courtois moomee nag ñu laaj ko où voyez-vous dans dix ans nan ngay gisee sa bopp fii ak dix ans mu ne leen Courtois ne je serai déjà à la retraite damay bàyyi football sax balaa boobee avec euh, une avec beaucoup de regrets ak rëcc yu bëree bëree bëri ak xol bu naqari j'espère être lié au Real Madrid d'une manière ou d'autre mu ngi noonu ne nag am na yaakaar am link ak Real Madrid bàyyi football ñu bàyyi ko foofee ci wete de formation mu géré gardien wala soit mu am benn liggéey boo xam ne daal na ko am foofee ci Real Madrid jëmee daal ci wàllu football euh, mu ngi noonu ne euh, nee na loolu daal mooy mbébétam te lu mu bëgg la kookee ñu doon ko Thibaut Courtois mu doon euh, joueur boo xam ne mu ngi def lu dara jarul foofee ci Real Madrid. jugee foofee ñëw ci classement ak nga xam ne jot naa am foofee ci Europe démb jox mais Premier League ak Serie A moo ci desoon dañ leen koy jox nii ñëw ci Serie A italien treizième journée kookee di Napoli moo jël première am vingt neuf points Atalanta jël deuxième am vingt huit points. waaye Inter jël troisième am 28 points euh, Koke Lazio euh, Fiorentina jël quatrième am 28 points Lazio jël euh, cinquième am 28 points Juventus jël sixième am 25 points Milan jël septième am 19 points Bologne jël huitième am 18 points Udinese jël neuvième am 17 points Empoli jël dixième am 16 points foofee ca League aussi tamit Liverpool moom jël première ci douzième journée bi am nu tolloog mën naa ni 31 points Man City jël deuxième am 23 points waaye Chelsea jël troisième am 22 points Arsenal jël euh, quatrième am 22 points Brighton jël cinquième am 22 points Tottenham jël sixième am 19 points euh, Nottingham Forest jël septième am 19 points Aston Villa jël huitième am 19 points Fulham jël neuvième am lu tollook euh, lu 18 points Aston Villa Newcastle jël dixième am 18 points di première yi foofee ca Premier League ak Liga espagnole ah, moom lañ leen leen jox noonu mu ngi noonu gars yi ñëw ci kan kooke ñu naan ko FC Barcelone en ce jamono ji euh, ci kiñ teg bët mooy Victor Gyökeres le Barça envisage un accord de 70 millions d'euros pour l'attaquant du Sporting Victor Gyökeres cet été sport moo gën di leeral li euh, mbiri kon nag muy commencé sori Barça nag am na yaakaar ken dina am accord ak kooku Victor Gyökeres ngir mu ñëw ci club bu Barça boobee ci lu tolloog 70 millions d'euros am na ci yaakaar mu ngi jéem teg ay pas ñuy xaar mbiri nan la ay Gyökeres nag choix bu baax la pour Barça ou pas ak présence Lewandowski ngeen bindal ma ñu waxtaanee ko mu ngi noonu képp koo xam ne gars yi abonné goo te di ma seetaan ba sa bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def dañ jox xibaar matin midi soir jaa ngeen jëf ba beneen.